joona suubu leen dem gaar ba jóg leen taxaw jóg nuy sant Seyxi Fallilo jóg leen taxaw nuy sant Seyxi Fallilu guddeeg bëccëg ñu jublu Seyxi Fallilu yaaro ci mboolem law lu yow Fallilo Mustafa yaay Muntakal yaay wàlliyu géejug mbindeef ay gi neex na mbàkke Cheikh Fallo fam nga jumaa ji xàll yoonu mbàkke sengul daagul dugal tey bi may ñëw liir bu tooy xepp laa laa indaale bootuma ko de mooy kii war na yàlla noonu laa ko ko indile ba ci biir barke Alaaji Fallu Mbàkke xoolal ku ko ñaan war na sëñ Fall Mbàkke nga dogu ko ci dëgg barke Alaaji Fall da la koy wan billaahi li ma leen di wax ci sama xol laa ko tibbe te dafa doon dafa doon dëgg sëñ Fallou ngi. cun euh, tey ñu fekk la ci euh, bërëbu sëñ Fallou rawatina bés bi nga xam ne moom moo di Kazu Rajab lan nga ñu mën a wax waaw gis moom comme ni nga ko waxee rek ñu ngi nuyu ñëpp di leen siyaare waaw sëñ Fallou moom ñi ñu dëkk Touba yàlla dafa dogal ñu xam ko yàlla dogal euh, bi ñu commencé suñu artiste dañoo ñëw ci barabam ñaan ko te yàlla dogal nit ñi dañu xam fu ne dañu seetaane fu ne loolu moo waral tey ma ànd ak sama xarit yi nga xamante ay gan la jóge kees ñëw dalal ma maanaam nag ñoom pour ñëw ziare si ko daal mhm. waaw daal bis bi tey bis bu màgg la muy bisu Kazu Rajab bi waaw waaw gis nga bisu Kazu Rajab moom bis bu màgg la moom te lu ci waaye ñaan rek mu nangu ñaan gi ñaan mooy ñaan ci réew mi jàmm xam na ne barab bi ma dugg yëpp li may ñaan mooy ci réew jàmm ndax euh, réew mi du amee jàmm rek ñëpp ñu am moo tax dañuy ñaan daal yàlla na réew mi am jàmm waaw du réew mi amee jàmm xale yi danañ am jàmm kilifa am jàmm ñëpp am jàmm waaw loolu daal moom fi ni tey moom Serigne Fallou tey ci bés bi waaw jërëjëf Serigne Touba est-ce que Serigne waaw sëñ Fallou de moom moom moom mooy lépp moom barke sëñ Tuubaa sant baax a baax a baax sëñ Fallou moom bis moom tuwaar kàlla moom waaw sant yàlla baax a baax a baax ñaan doole sëñ Tuubaa lépp luñ fi yàlla na ko yàlla na barke sëñ Fallou tabarkàlla jaajëf jërëjëf eh, dégg ngeen kàddu yu am solo yi nga xam ne yëkkati na ko eh, lépp rek tey ñu nekk fii nga xam ne moom moo di eh, ci barabu Serigne Fallou mbake bi gis ngeen liggéey bu am solo bi nga xam ne boobaak léegi nit ñi ñu ngi bàyyee ko fu nekk ngir ziar jëmm joojee nga xam ne moom moo di Cheikh Mouhamadoul Fadal Mbacké ñaareelu xalif général des Mourides ñu fas yéene àndaat ak rek ba léegi ci wàllu ko ziar yi ngir ànd ceeg yéen incha allahu rabbi alaaji dem nga fa Makka fam nga ni li lay alaaji Fallu yaa juboog li lay am nga nga ni li yàlla hubbu lay fam nga nga ni li Bamba hamdu lay saretu aqiqatul iman alaaji Fallu yaay borom kéemaan sëriñ Modou Boussa Dieng sëriñ Modou Boussa Dieng sëriñ Modou Boussa Dieng sëñ Moodu bu sa jeng bay baari ab xalifa di alaaji moom xarnu beeg Tuuba tabax jumaa ji alaaji Fallu lay mooy xalifa moo bi yoonu Makka naw leen néew fa moo bi yoonu Makka ak Madina xarnu bi naat na ay million sappeena moo bi yoonu Makka ak Madina alaaji Baara Mbàkke saana diina yaab siyaare amadul makiyu del siyaar Ahmadul Mbàkke del siyaar waa Baqiya xabru Tayba siyaar kër njool Makka xam nga barba Seex añ na fa Makka sànni jamra foon doj wa dem Arafa dellu umra dem na Safa dem na Muzdalifa taxaw maqaama dem na jul jumaa ja nan ca biir zam-zam caaya yaa bari ndam jaloore ak i a tiital mu ne su laa yaa di suukar maa mam